doute sur la sincérité de ce ak sur la sincérité de l'engagement qu'il pourrait avoir ultérieurement aux côtés du, du, du, du candidat parce que euh, la presse l'a noté. Uh il a justifié le retrait de sa candidature uh par le contexte, par la nécessité de gagner, de perpétuer l'œuvre de Macky Sall, etc., etc. Mais en aucun moment dans la déclaration, il ne parle de, de, de, de, de Amadou, Ba. mënuñu dute parce que am na ñu bari ñu jàpp ne Abdoulaye Daouda bu ñu ko tànnul woon xëy na du affronter Macky Sall di bàyyi mais tamit dina jàpp njàmburam est-ce que lu ci logique boobu la nar a nekk. waaw xam nga ñuy wax loolu xamuñu kan mooy Abdoulaye Daouda xam nga. mooy pourquoi omettre le nom du du du candidat. waaw mais danga may déglu danga may laaj déglu xam nga may mun a dafa am un grand penseur qui dit que les grands esprits discutent des idées. les esprits moyens discutent des événements et les tout petits esprits discutent des gens Abdoulaye Daouda fait partie de ces grands esprits qui discutent des idées xam nga dafa am ñoo xam ne Sénégal ñoo raw jënaxu baje <laughs> maanaam suñu xëyee suba ba ngoon lu bon la ñuy seet di ko digg di ko wax Euh, Abdoulaye Daouda ñun bu fekkoon ne d'accord nañ ci choix mais dañuy dem rapidement mais mais yow loo xam ne d'accorduñ ci woon ñuy waxtaan ak président def ay analyse waxtaan suñu biir léegi dañoo bëggoon xam naa Ablaye juge fa rek daa di pare rek daw primature daa di jël waa ji jël ko song long ko génn moom ci mbedd bi déglu ma non attends déglu ma déglu ma ablaay Daouda c'est un homme boo xam ne dépassé na ay naa tudd diw ak du ma tudd diw xam nga ci lan la nekk président Macky Sall la gis waxtaan ak moom ñun ay ñooñam ñu waxtaan ak président suñu biir ñu waxtaan mu expliquer le retrait de sa candidature pour s'engager à la candidature euh, pour s'engager pour la victoire en 2025 c'est pour la est-ce que c'est pour la victoire d'un rat est-ce que c'est pour la victoire d'un d'un d'un chat est-ce que c'est pour la victoire d'une autre personne mais c'est pour la victoire du candidat choisi donc je pense que li gën a am solo moom mooy que Abdoulaye Daouda a retiré sa candidature ñoo na pour jàppale le choix du président dañu war a def nii te bañ a nekk fii naan ay tudd na di